Euh, de war euh, am lu nek li nga xam ne am solo la donc il faut délégation yi waxtaan si bu baax a baax euh, fii nag Sénégal comme ni ma la ko waxoon léegi chef frère si suñu biir bureau Sénégal dafa am benn structure maanaam benn organisation On bu ñuy wax SICO maanaam comité interministériel de coordination des opérations modi dit que ministre de l'Intérieur intérieur mais ministre, yi nga dañuy wara ñoo euh, forces armées bien sûr gendarmerie l'armée armée mais aussi le ministre de la santé en général parce que su attaque rek nit yi am nañu ay une ñu rapidement aussi donc.

Sénégal bii la def am jafe-jafe yu métti c'est vrai on est risque permanent si surtout en matière NRBC je crois que mon colonel il faut prendre ces éléments à disposition mais surtout dans le cadre de la formation eh, beneen bi en dehors du terrorisme mooy wax nga ko eh, disons quand même protection ñaari réew yi loolu tamit baax na si ñu xam ne daal que réew mi benn la mënoo def eh, ñaawteef Sénégal nga dem Gambie xalaat nañu échappé moo tax nga def ko Gambie nga ñëw Sénégal nga xalaat échappé ko suñu mi muy benn rek maanaam patrouille mu nekk benn police bi toog di waxtaan ñu gisee léeg-léeg bu ñu mënewul dem da ngay taal sa rek dem ba bordeaux bi wax frontière bi wala nga taal sa oto ah, jógee Gambie ñëw ba frontière ku ngeen tase rek ngeen waxtaan voilà su ngeen su ñu ko day yàgg def rek police bi def noonu gendarmerie bi def noonu douane bi ah, foog naa ne eh, dinañu xam ne ko mbir mi maanaam changé na bu baax baax Lolo, en tout cas le signe président est quand même joxe comme ordre de mission et loolu la ñu war obligatoirement c'est suñu diggante mais surtout tout ciy gën a demalante gën a bu opération conjointe yi baax mais aussi une formation britannique. Lolo, aussi surtout a une police scientifique tabarkalla euh, quand même qui est très opérationnel d'ailleurs le directeur de la police judiciaire est là bon déjà donc tout ça il faudra le voir dans le cadre de la donc, de vos science de travail, mais aussi nous proposer en définitive, quand même, disons, pour nous, pour conjoint, nga xam ne dañu si war pour suñu préparer disons réunion bi nous xam ne en tout cas lancé la base de coopération totale et entière entre notre pays.